man man la Ablaye Diouf maa euh, ma collectif bu Xinin collectif bu Xinin ma coordinateur. bi and ak euh, président bi Omar Gay, ak les membres ak wa collectif Lelo bi ñun ñep ñoo fi teew. waaw effectivement euh, dañu ñëwone pour assister conférence de presse bi am fi collectifs xamné collectif yi ñoko organiser les cinq collectifs. ñoo organiser conférence de presse bi ñu bëggoon ñëw teew waxaale aussi doléance waa Xinin. waaw pratiquement Xinin euh, xam nga nu commune bu bindoo géographiquement dafa nekk dafa nekk cinq euh, trois pàcc mooy zone nord zone sud ak zone centre ñun zone centre bi ñu nekk dafa amoon ay problème c'est-à-dire dañu joxoon ay euh, dañoo ñëwoon morcelé ko mais finalement maire bi dafa gis ne morcellement bi baaxul mu ñëwaat. di rectifier morcellement boobu mu ne léegi day day def lotissement administratif ci foofu noonu lotissement administratif boobu mu ne moom lay def population yi ànd ceeg moom léegi présentement moom moo ñu war a jox suñuy papier te ay ay bàyyi la ñu wax ne moom lay am ay notification de bàyyi la ñuy jot fu mu nekk nii présentement ñoom ñu ngi liggéey foofu mais population bi ñu ngi xaar ci ñoom ay notification de bàyyi bon président bon joxuñu mais su bi avec euh, la collaboration de euh, cabinet cabinet foncier madame Ndour su bi dinañ ñu ku papier population bi yépp ku ci papier loolu wax si toll ci hectares yu nekk foofu ak 32 hectares yu nekk ñetti seng soo demee ci kaw jëm Tugoni am na 80 hectares yu fa nekk loolu nag présentement ñoom ñu ngi ciy liggéey suñu liggéeyee ba pare nee nañ population bi ku ci nekk dina jot notification de bay loolu la ñu wax te ñun autorité administrative yi loolu ñu wax ci loolu la ñu tënku ba ëllëg ñu ba ñuy gis leneen foofu noonu ci ci lotissement bi ñoom dañ leen waxaat ni buñ lotissé ba pare ku ci nekk la nga am moom lañ lay jox wala ñoom dañuy bàyyi ba lotissement bi jeex. effectivement dañ ñu lotissement bi suñ demee ba jeex dinañ ñu woo réunion avec les autorités administratives ku ci nekk li nga amoon loolu lañ lay delloo loolu lañ ñu wax.